abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV dal leen ak jàmm mbokk internet yi moom mi di Maître Ngagne Demba Touré nag mën nañ coordinateur national de JPS gannaaw nag ci parti bi di Pastef Pastef rek mën nañ ndombay tànk ya nga xam ne rek man ka fa daal di amee waraloon nag ni ki démb rek mu daal di commencé woon li nga xam ne nag moom mooy nemmeeku tour bu nga xam ne rek mi ngi koy amal ci gox goxaan yi ci Sénégal ni ki démb nag jaaram foofule ca diwaanu Mbour rawatina nag département yi nga xam ne rek moom moo fa daal di nekk pour nag fa séenee dal di soññiwaat ndaw ndaw ña nga xam ne rek ñoom ñoo fa nekk ci liggéeyu Pastef rawatina nag élection yi nga xam ne rek moom la ñu daal di dëgmal seen taxawaay gannaaw nag affectation foofu la ca diwaanu Matam mu ne nag du sa yam ndaxte nag jour ya nga xam ne rek mën nañ ñee bokkul ci jour ya nga xam ne rek moom la war a liggéey dina daal di continuer ay activité wër àdduna bi yëpp rek rawatina nag fii ci diwaanu Sénégal nga xam ne nag dina daal di topp ñi nga xam ne rek mën nañ ay patriote lañ ak ñi nga xam ne rek dañoo bëgg kii di président Ousmane ñoo fare fii ci Pastef mu daal di leen di gën a yokk li nga xam ne nag moom mooy doole ci parti bii di Pastef ci élection yi nga xam ne rek moom la ñu dégmal rawatina nag lii nga xam ne rek moom mooy taxawaayu Ousmane Sonko waraloon nag niki démb mu génnoon moom mii nga xam ne nag moom mooy Maître Ngagne Demba Touré eh, te di xam ne kat mën na ne tournée boobee day continuer di ko wëyal ci li nga xam ne rek moom mooy gox goxaan yi ci biir Sénégal di leen di jaajëfal di leen wax ngeen di woy di abon